baabul bay'i wa ma bi bihi mu ngi jàngale ci bunt bi buntam njaay bi mu jeexalee ci buntab sëy ak bagaas yam ànd ak ci la dugg ci buntam njaay dugalaale ci bagaas yi njaay xam yëpp ndax ñoom ñaar dafa am gendeeku guñ bokkaale boo ko gendeekoo doomu aadama dañ koo bind mu soxlawoo jëm ci lekk comme ni muy soxlawoo jëm ci jigéen ñi bi mu soxlawoo jëm ci jigéen ñi say ñëw bi mu soxlawoo jëm ci lekk yi jëflante yi ñëw mm, su ko defee man laa daganal la nekk ca loxo jàmbur ba man a daganal li nekk ci sa loxo bi dem ca loxoom ba ci buntu boo xamee ni dangeen ngeen caa d'accordante yéen ñaar te la ngeen koy jëflante nekk lu sariya yaxal ci ñu mën koo jaay bokkul ci lu sariya tere moo tax kon xikmatu njaay mooy loolu rek mooy dagganal la li sa loxo morom yow tamit mu daganal ko li sa loxo bi euh, loola moo tax yàlla indi ñu ko ci bunt yi nga xam ne ci lañ koy ci tomb yi nga xam ne moom la ñuy war a mën a rempli njaay mën a mën a nekk kenn ku ne mën a jëriñoo ci sa loxom njariñ ba bu njëkk ba nag ba fi xaalis amagutoon dañ daan essence wante rek ci wàllu marchandise su ma soxlaa dugub jox la gerte nga jox ma ko yeddan bi yeddin donte tolloowuñ su ma soxlaa yére ñëw seet ma neen marchandise ma jox la nga jox ma yére booba xaalis amagul xaalis amee nag gannaaw si gi nag ci la lu yàqu lépp ci la yàqoo nag mu nekk lenn lu ñëpp soxlaa ndoor jafe-jafe gi yëpp nag loolaa ko indi waaye booba nag soxla yi bu ñu wutee wante woon rek lenn li nga xam ne ñëpp xam nañ ca wala ñenn ña xam ko ci lañ daan essence wante am naa lii amoo ko ma am lee tayoo amoo ko ñu mën a jëriñante ca loola dégg nga Mm, euh, njaay moomu nag lay wax njaay nag charia daf koo dagganal alquran wax na ko wa ahalallaahu al-bay'a waaye na fay dem xanam koo xam ne dafay passé sax dagan waaye day nekk di lu war bu nit ki xaajoo jëm ci lekk ci ñam loru ca lool yow nga yor ko ñaara mën a taxaw jox ko ko ngir yàlla yàlla fay la wala nga jaay ko ko far force waaye boo ko bàyyee joxoo ko ñam ba mu dee da da nga faat bakkan nañ lay xatte léegi léeg njaay tamit dana taxaw taxawaayu luñ sopp soxla ñam de soxla naa ko waaye loru xuma ca te yow yaa ngi nii am nga da ngay jaay sopp nañ nga jaay ko ndax bu waa ji demee ba soxla ca man ko jëriñoo waaye bu ko soxlaa ba nekk ci mu mudu tar kon boobaa far force da nga koo war a jaay mbaa nga may ko ko njaay tamit léeg-léeg mu xaraam ndax jaay loo xam ne charia da koo xaraamal lu mel ni mbaam xuux ak sàngaraak yu mel noona dafay xaraam léeg-léeg tamit njaay mu nekk luñ sib lu mel ni jaay yàpp gar yi ndeg ment yi yooya nga xamee nekk ci àll bi ngay géej seen jàpp yi di leen jaay kooku dañ koo sib dégg de euh, mu ngook waaye nag moom njaay ñetti ponk ci lay mën a taxawee kii fas njaay ma ak ki koy fasak ak la ñuy fas ak luy tegtale na ñoom ñaar accord nañ ca mën na ne ci wax mën naa nekk ci jëf moo tax mu ne yanaaqidu dana fasu albayu njaay bi maa ci lépp loo xam ne xadda la tegtale na àla rida ci d'accord yuraa def na gis ko xaw lan muy wax aw fi'lan wala jëf kon xandaar yi nga xam ne nii moom la na nattee jaay ba mën a mën a wér mooy bokk na ci li ngay jaay bu jaayoo ki koy jaay jaayuhu kiñ koy jaay tamit jaayuhu nañ ko jaayee ci anam goo xam ne gu jaayuhu la liñ may jaay daal wax nga wax juy tekki ne man mii nangu naa yow mii tamit nangu nga wala kay boo ko waxut tamit jëf nga ko ku ne xam na ne kornetu caafu gerte juróomi dërëm lay jar soccu ñaari dërëm wala juróomi dërëm nga yëkkati njëgg rek teg ko ca jël luñ njëgal la waxoo waxuma kooku dafa fasowu ci wax rek dafa fasowu ci jëf rek wala jaay naa la ko ci fukki dërëm jënd naa ko ci kooku dafa fasu ci wax rek wala ànd ak wax ak jëf sax wax nga ma tontu la nga jëf ma jëf su boobaa kon njaay ma tamit fasu na te noonu dégg nga min aqidin mu tukkee ko ji aji fas joo xam ne mu kalafin kuñ togg jëf la rachidin nekk ku ñor fii milkihi ci moomeelam nag wa chartu charta nag fil maquudi alayhi ca la ñuy fas maqdurun mooy loo xam ne xattan nañ ala taslimi yi ci mën koo jébbale walam yërit tarotut nassun yax ala tahrimihi ci xaraamal ko kon chartay njaa yooyu ma waxoon la ñett la bi ci njëkk mooy kii fas na nekk mu kallaf na jàqee donte mësoor agut sax bu jàqee rek xàmmee ba bu jëndee duñ ko nax bu jaayee duñ ko nax dagan na donte jàqeewut bu nekkee mukallaf man ne tey mësuur na waaye xel maa yàqu duhut mukallaf ba tey nga xam ne bu jëndee ñu nax ko bu jaayee mu nax ko boobu am njaayam ak jëndam wérul ndax nuhul rashid moo tax kon na ñor moo tax xale yi di ndaw di jëndi tàngal xàmmeewuñu daganut ndax ñooña xamuñ dara mën nañoo ñëw yëkkati mille francs jox la ko jaay ma te fekk la ñuy jënd sa xamuñu ko mooma njaay daganut lu dul kilifa ga nekk seen gannaaw wëyal ko su ko woyeelu na ñëw ne la xale bi kat dafa jël xaalis bi li muy jënd nangam nangam da ko war a xàcc nga delloo ko xaalisam bi ndax jàqewul ci jënd te ku mel noonu te waroo koo jaay yow bu fekkee jàng nga charia la jaay tamit na fekk nga mën koo jébbale waaye jaay loo xam ne waxi kese mënoo koo jébbale kooka tamit daganut tey bokk na ci tey nuuru maan yi ak rangu maan yi taxaw fa lay nit ki ci marchandise ba pare te buñ la indi yow mënoo koo jébbale déedéet daganut boo bëggee nuru daal yow daal bu la waajee ne dama bëgg a jënd ventilateur te yow ko daal demal ba ca moom ka xam ventilateur yi mu jaay ko ko lu mu la ca loola lew la waaye waxanteeg moom ci ñaa ci ventilateur ñetti junne ba ngeen juboo ba pare mu door laa jox xaalis bi wala mu toog di la xaar nga door a dem di wëri seet foo mën a amee treize mille mbaa douze mille su boobaa ñett mën a xam benn nga xamee ku ci la gën a cher la nga waxanteeg waa ji te kon da ngaa war a matal te loolu ak dese la ak quinze mille ngeen jubóo te vingt mille nga fekk te yow yaa kon naa ko maa ngi koy indi xaar kon dama indi ko ko ci vingt mille te kon sa cinq mille ba perte na te loolu ak dese la wala nga xamee ko ca la ngeen waxoon net muy quinze mille ya sa dox ba perte na. wala nga xamee ko ca lu gën a yées lool te yaa ngay fas njaay ma perte loo nga waaji ndax boo ko bàyyi woon mu hegg mën na ko xam ci 13000 te yow yaa ngi ne jaay ko ci 15000 loolu kon daganut kooku mooy nuuru maan yi ak rangu maan yi looy jaay danga ko koo war a mën a jébbale anamu nga ne mi ngi nii dégg nga de euh, dégg nga euh, euh, ba ca tegu tamit la ñuy jaay. bu ca yax ci xaraamal ko mbaam xuux dafa xaraam sàngara dafa xaram yooyu yëpp boo ko jaayee charia du ko nangu ndax yaxaroot ci xaraamal lu mel noona dégg nga wa taahirut muy aji laab tamit li ngay jaay dafa war a laab sobe kenn du ko jaay yun tafawu def na jariñoo bii ci moom saraan ci charia mu nekk lu ñu mën a jariñoo ci charia waaye jaay loo xam ne nii mënuñ koo jëriñoo ci charia tamit charia du ko d'accord wa alimun di aji xam kulun képp ci ak jënd ak jaay bi maa xadd yadd faxu ca la muy jañ la muy joxe kenn ku ne xam na ko kon gis nga ko sarta yooya la commencé woon di la ko fasal sarta bu njëkk ba ci li ñuy jaay waxoon na la ne la luy tegtale seen ak d'accord ñoom ñaar mën naa xamee ci wax mën naa xamee ci jëf bam la waxee wax rek mooy xam nangu ca wax ja bam la waxee jëf rek mooy gis ak settantal nangu ca jëf ja su yi amee rek ni ki jaay naa la ko ci fukki dërëm nga ne tamit nangu naa jënd naa ko ci loolu nga wax yéen ñaar ñëpp ngeen indi ci siratul maadi wala mu ne jaay ma ko ci ñaari junne mu ne man tamit mu jënd jaaykat ba wax loolu ne ko tamit jaaykat ba tamit ne ko jaay naa la ko ci loolu nga wax su boobaa tamit kii indi fi'lu amar kii indi tamit siixatul maadi ci fi'l ak faa'il ja waaye lu passé la su boobaa tamit loola maanaam dagan na waaye na fekk ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ñaar ñu ñor ba buñ jëndee mbaa buñ jaayee duñ leen mën a nax ca wàllu wawa su fekkee nga ko jëflante kuñ mën a nax ka nekk ca gannaawam bu ko wéyalee mu wéy su ko wéyalul tamit dañuy firi maanaam tamit njaay ma ñaareelu ponk ba ci njaay mooy kiy fas dañuy sartaal ca wér njaayam ma dégg nga donte xale la boo xam ne bu jàqee la mu nekk xale boo xam ne bu jàqee la ku ñor la euh, ba nga nekk dof wala ba nga nekk koo xam ne dafa màndi ca waxtu woowa noona ku màndi bu fa lu xaraam bu fasee fase ma tàbbi waaye bu njaayee ñu ne njaayam ma duñ koo valider du mën a wér dénga na nekk koo xam ne ku ñor la bu jëndee ci njaayam yëpp kenn du ko mën a nax ca wàll woowa dégg nga ma njaay ma tamit la ñuy jaay na nekk loo xam ne mën nañ koo jébbalee marchandise mu ñu mën a jébbale waaye xam nga ab jaam bu daw gëléem gu dàngang yooyu yëpp njaayam xarar la duñ ko mën a mënuñ koo jébbale moo tax tamit ko mën a jaay wala tamit nag nekk kenn ku ne ci ñoom ñaar la ngay joxe ma xam ko li may jël man tamit ma xam ko boo ma jaayee jën yi nekk ci biir géej gi ñaar laa ko réeree xaw ma ñu jën ya toll ñaareel ba réeree naa xeetu jën ya yan la yaa la wala ka kii la yeneen ci aju yooyu yëpp kon du dagan la ngay jaay tamit bu yax rot ci xaraamal ko ab xaj kenn du ko jaay yonentoo ko wax tere na ko naha an bayil kal kal bi dégg nga de yooyu yëpp kenn du ko mën a jaay kon yooyu nga xam ne yaxa ci rot kenn du ko jaay li ngay jaay na fekk muy lu laab loo xam ne nii du jëmmi sobe ca boppam ay cabinet jëmmi sobe la euh, dégg nga derba médd la médd maanaam derab médd béjjën ya yax ya wala mbaam xuux ci boppam walla lu mel ni sàngara yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne sobe la kenn waru koo jaay loo xam ne nag dëgg la laaboon na di ki diwtiir gi wala dawlin gi euh, sobe ñëw dugg ca gu goroyaat loolu tamit dafa a jaay waaye nag loola mën nañ caa jariñoo defar ko saabu di ca ay yére yu mel noonu dara newu ci lu mel ni jumtukaayu foy dafa a jaay loo xam ne fo rek la man riiti yeeg bala mbata yeeg gitaar yeeg yu mel noonu yëpp kenn warut koo jaay dafa xaraam te yooyu tey ñoo gën a ñoo gën a seer ci lu ñuy war a mën a jëfandikoo dégg nga mu nga kon bayul fuduli jaayam fuduli te mooy jaay xal li jàmbur waaqifun aji taxaw la ala ridal maliki ci ngërmandik aji moom nga ca kanam wal murtahini ak aji tayle ji moom tamit waaqifun aji taxaw la ci ki nga xam ne ala man si nga xam ne xadrahana moo tayle kon yi maa jël fële sa fas wa dem jaay ko ngaa nekk fi ci dëkk bi sa mag ja dem jaay sa fas wi soo wéyalee njaay moom mu wër boo ko wéyalut du wéy su fekkoon ne yaa ngi fii ci dëkk bi di ko xool mu lay xool mu dem jaay fas wa waxoo ca dara ba mu xas jaay ko tamit njaay ga wéer na kenn du ko weddeeti waaye yëgoo nekkoo fa wala yaa nga fa waaye yëgoo ba mu jaay ko boo ko wéyalee mu wéy boo ko wéyalut du wéy naka noonu tamit ku tayle woon yëkkati fukki junne koo leb ci yow nga ne ko ma sa machine bi mu yëkkati machine ba tayle ko fa waxtu wa ngeen waxoon jot mënuloo fay loolu tamit doo doo dem ca saasa rek nag dem jaaye ko yoon a ngi fi da ko yóbbu ci yoon suñ ko yóbboo ci yoon na bu ñu ko jaayee sariya dafay wax ne dañuy seet liñ ko jaayee ñaata la ñu ne ah fukki junne nga ko jaayee kon rakkati koo ngeen xamul joxe dara moom la ko xaadi bi jaay na jox fukki junne rek nga dem mu jeex su fekkee da ko jaayee lu gën a xiis loola dafa lay da nga koy da koy da nga koy la ca des soo ko jaayee lu hëpp loola da nga koy delloo xaalisam bi waaye léegi da ngay jël waa ji mu yore këram muy jar cinquante million nga dem ci banque bi mu lebal la dix millions di ñaan yàlla boo ñëwati soo heure ba jotee rek mu jaay sa kër gi loolu tamit dagganut xanaa yow mooma nga xam ne yaa tayle woon nga wëyal ko ndax tayle du wel de du du welee ca noona de borom tayle ga du taxaw tayle ga wel rek naa gaaw jaay ko ca noona yoon dafa am ñu ko yóbbu ci yoon bañ xam ne lottloo nañ ko fu ne nii ñu door koo mën a jaay su tolloo xee kenn ku ne dem sa morom kenn ku ne dem nga bàyyi sa morom su xeesee nga dolli ma su xëppee eh, ma dolli la su fekkee dafa xëpp nga jox ma la nga xam ne moom mu xëpp ci njëgg waa gi na tayle rek nga ne ndàngam ak ndàngam dem dem dem dem jaay ko ca noona tamit su boobaa ko dagan mi ngi mel ni kenn ku tayle fasam wala mu tayle suufam walla këram mu jëm diir bu ñu xam ni kii ñu ngi ko def maanaam le 5 janvier ñu dem a dem ba nga xam ne diir ba jot na waa ji amut tax yow nga dëgg ca loola dem jaay ko pour bëgg koo jariñoo su boobaa bu ko waaji wéyalee mu wéy bu ko wéyalu tamit du mën a wéy moo tax kon bayul fuduli njaayam jàmbur waaqifun aji taxaw la wal murtahi nekk aji tayla ji ala ridal maliki ca ngër mandek aji moom ja aw man xadraha na war a ci nga xam ne tayla dafa def lafun wa mu murattabun ci xam-xamu balaaga ala ridal maliki mooy dellu ci bay'ul fu yi ba tax ala man qad rahana mooy dellu ci murtahin bi wa in janaa bu tooñe abdun jaam fa rabbul abdi borom jaam ba mu xayrun kuñ tànn loola fi dafihi ca jañ aw yëf di wala mu jot ko wala mu njot mooy fay la waaja la jaam ba yàq kon jaam bu tooñee tooñ ñaar la su fekkee dafa tooñ ci jëmmi jàmburu fukki bëtab jàmburu mbaa mu dagg loxoom wala baaraam ya tooñ nga ñaar la mën a doon muy tayeef wala muy njuumte su fekkee tayeef la nañ ko xisaas ca moom ndax loola jàjji ko jàjji waale tamit ay moromam bu la ko defoon yow gor moom du fayu ci yow ndax du woon nawleem waaye ko defee moom dañ koy teg dañ koy teg pet ba jaam bi bu ko defee gor bi nga de su fekkee tamit nag euh, du tay su boobaa ñaara mën a xam moom moomu gaañ na nit wala mu yàqal nit te du tay su boobaa charia may na borom jàmb mu ne ko faye naa la jàmbi doonte lay waajalam yàq la jàmba yàq moo ëpp xaymaay jambi bu ko joxee wàccoo nañ wala mu ne ko lu jàmbi yàq mu ne nangam mu yëkkati njot loola doonte lam jot sax mu ëpp xaymaay jàmbi tamit wàccee nañ ñaari la ñu tànnaloo borom jàmbi lu mu ca def rek charia nangu na ko wam nax na nga tere ridal fadli rid riba ndollal wa nasa ak niribaawu yéexee fi naqdi ci kexe muy wuro xaalis wuru sa xaalis wal mat wal mat omeeg lu ñuy lekk la filma yi du caa kenn ndox riba ñaari xaaj la ribal fadli ak riba a su fekkee ne xeet ya dañoo nekk benn kexe laa xamee nga xamee kexe wurus wurus xaalis CFA bi ak xaalisu CFA bi euro bi ak euro bi dollar bi ak dollar bi xëppalante ca xaraam na dafa war a tolloo yadan bi yadin mislan bi mislin mu jeex waaye nag a wecc weccatu waa Bàmba yi fi nekk de dañu nit ñu baax nga leen di tooñ ca loola diis na na dégg nga de neuf mille cinq cent laa am de ci dix mille wala weccatu car rapide fi nekk de yooyu yëpp dafa xaram comme CFA bi rek la dañ koo miin rek nag waaye daganut dégg nga su fekkee ne nag xaalis yi dafa xuutee euro laa amee nga yore CFA nga weccee ma ko taux booba tegu ca dara niku ca waaye nag yadan bi yadin rek jox ma ma jox la waaye su ma ne damay voyage si Dubaay 10 millions laa soxla ci euro nga ne ko mën naa la ko defal ci CFA téye xaaleel bu subaa nga ñëw wala mën ngaa dem ba voyage boo ñu ñëw jox ma ko xaraam na xanaa ngeen dugal ko ci bunta bor ma laa lebal 10 millions yi boo ñëwee ba jaay fay ma ngeen xutal ko dara ne ko ci waaye nag ma la ko weccee nangam boo ñëwee lu tooba toll nga jox ma ko loola xaraam na moo tax tamit yàlla lislaam lu mu xaraamal soo ko defee fekk ci sa gaañ boo demoon tey sànn nga nga proposé leen masala mii li ci loro kenn xamul niñ toll ku daan wecc ci xaalis ñi xam ko ci lool nga daan voyage mu lay wecci nga hóolu ko yëkkati sa alal jox ko ko ne ko bu subaa mu andil la ko waaye nga jaaree ca moom dagg bee dem Amérique mbaa mu daw loola ken xamut li ci li ci li ci sànku la ci xaalis waaye ba lislaam waxee yeddan bi yedin bu ngeen ko defee woon donte tuuba cay tegu dagan na su boobaa du ngeen ma xam ak loro yu ñuy lekk tamit ñam yi Euh, dugub ak dugub yadan bi yadin rek mislan bi mislin su fekkee tamit dugubu dugub la ak mel ni euh, ceeb bi wala mboq mi nga xam ne wuute nañ ah kay dagan na xëppalante waaye daganut yéexe ci wenn xeet wa kon nag riba ñaar la su fekkee ne wenn xeet la daganut xëppalante su fekkee xeet ya wuute na daggan na xëppalante waaye daganut yéexe mu ngoog dégg nga waaye laa fil maa na du caakeen ndox buy ndox moom wenn xeet wa daggan na xëppalante waaye daggan du yéexe xandik ndox mu neex ca Kawlax wala ci ndakaaru wala feneen mën naa la koo jaayee ci juróomi xandik ndox mu naqari daggan na ndox rek la nag waaye jox ma léegi ma jox la léegi rek waaye bu xëppalantee rek xaraam na naka noonu ci yenn fur yi benn xeet bi pom laa pom laa am pom nga am xaal laa am xaal laa am waaye xaali duñ benn gën nañoo neexante gën nañoo rëyante waaye comme xaal xaal rek la dagan na ci wenn xeetu xaal wa ñu hëppalante ca waaye nag daganut yéexe gi jox ma ma jox la léegi rek donte la hëppalante ga xam na ca buy pom baag lu mel ni orange baag yooya dagan na euh, hëppalante ga waaye ci wenn xeet wa waaye daganut maanaam yéexe ga moo tax mu ne wam na na nga tere ribal fadli ribaawu ndollal wa nasaa yéexe fi naqadi ci kee wal matoxo meegi lu ñuy lekk yi laa filmaay du caakeen ndox foofa moom buy ndox mi ak fur yi dagan na euh, ak yu na yu tooy yooyu dagan na ga ci wenn xeet bi waaye nag daganut yéexi ga wa xarramu xaraamal nañ ñoom boroom xam-xam yi fil ci njaay kat mala ayib bi nëbbu ayib booy jaay te boo waxee ayib ba mu wàññi njëgg wala mu fomm waaja bëggoon a jënd sax waxal rek buy fas wu maam mu waxal buy fas wu bañ sareet waxal buy fas wu mokkut waxal buy fas woo xam ne du xam doom dafa jaasir waxal la ca nekk yëpp buy dugub jaag ceeb baag la ca nekk yëpp waxal bu ceeb bu xam tànn waxal lépp nga xam ko wala riche ak jaxase mooy njar nga njar jël soow mii di ma ko jaayee soow piiri fekk sot nañ ca ndox wala dawlin bi wala pétrole bi wala essence bi yooyu yëpp di ko njar dafa xaraam wan na gis ak soobe sóobe kan mooy la nekk ca marché Sandaga bale yaa ma ko gën a xam waaje ñëw di jaay prix bi ñaata télévision bi mu ne ko deux cent mille kee ñëw dëgge ko fale ne mën naa ci deux cent cinquante mille kene ñëw ne ko toppal fële mën naa ci trois cent mille fekk ñaar ñooña kenn jëndut ca kenn ka rek kay jënd waaye dañoo bëgg a sóobu waaj yi ba man caa fay lu gën a kawe bu paree mu giseeg waaje mu am lu ko jox ak a bëri ci dëkk bi loola daggat la dafa xaraam ka xat bi sëy bi ni ki tamit réex bi jaaw fu doon bi jaaw waa ji dafa bee jaaw muy ab jaam ci jamono jañ koy wax nga bëgg koo jaay ne xale la nga fuddan ko wala nga ñuulal ko karaw nga ñuul ko waa ji ne xale bu góor laa jënd de bee jaawagul sax fekk maanaam am màgget la moo tax ñuulal yi le bu ca trompé na ree xam xaraam bu ca trompé xamul nag sib nañ ko nekk màgget ñuulal sa karaw gi le dem takkab jànq mu ne man de coofa ma takk ma nga nee xamul benn karaw gu ñuul gu weex fekk naa ab màgget la loolu tamit daganut ceeg jigéen nga tamit def noonu tamit trompé jëkkër ja ci wàllu woowa daganut ci dañu dugaaleele tamit mees yépp riche rek la mees sa mees yi waaye ñëw ak taar ba teg sa ki gréfaas yeeg yi ci xaju waaye ndeke boo ko teggee bopp ba ay xër-xëraana ca nekk ak ay janji yooyu yépp xor rek la dara baaxu ci dégg nga kon njaay nëbbu ci ayib xaraam na njaay njar ca xaraam na njaay soobaate ca xaraam na melal ca couleur bu melu hutti mi yooyu xaraam na jël pepp mu daaw mi di ko jaxaseeg mu ren mi wala ngooñ mi wala gerte gi di ko jaayee prix lii yëpp dafa xaraam aw zid wala nga dolli alayhi waral ko adday na bor ba li taaquri ngir yéexe ga dama laa lebaloon fanweeri junni ngi jëm weer wu dee xamoo nga ne mën nañ yokkaat diir bi yokk bor ba xaraam na ma defaat ko ñeen fukki junni rek ñu jëmaat janvier ba xaraam na aw maa wala la nga xam ne wala nga ne aw aw aw wala firi maa la nga xam ne xale yi waral na ko fii mu àqari ci lu ñu yéexee la ab baykat la ndeysaanam ñëwoon leb la ci bitig bi ci magasin bi fukki junne ngeen jëm ne weer décembre bu jotee mu ñëw jox la ko ñu dem ba décembre jot yàlla jogal amut mu ne dara xaw ko sama mbay mi dong laa fi yaakaar bàyyil kon ma nga firil ma fukki junne yoo ma waroon laa jox naa la ko jox ci fukki saa koy dugub su ko defee ñu demee ba dugub ji ñor ma jox la ko ca noona loolu kon xaraam na ndax la lañ ko firilee yow téexoo ko woon te defaat na beneen bor ca kanamam loolu kon dafay xaraam day xam tamit ci marchandise yi gaa yi da ñëw fii tay ca kat bu waa ji kat joxoon la ay piis ràng ko ngeen jëm ne ko kat weer wu dee bu jotee nga ñëw jox ma sama xaalis bi ngeen d'accord weer wa dee waa ji mu ne kon nag ràngaat jëfalaat ma ko ci conteneur be may bu ñëw dana la ci jox nangam ngeen firee bor ba ca lee di ñëw te duhut lu teew loolu dafa xaram waaye nag amaa tey li yi def tey ci àll bi yëkkati fan fukki junne ngeen waxante ko ci dugub bu jotee ñi xam ñaata saako la juróomi saako la mbaa fukki saako la yow nga joxe njëgg ba pare xam nga luñ njëgal la tamit nam toll poids ba xeet wa xam nga tamit heure bañ koy war a date bu jotee tamit nga indi ko doora dara newu ci dagan na ndax mooy njaay la muñ teewal njëgga di xaar maanaam lu njëgal la te luñ jëgal la nañ poids am ba xam nañ xeetam wa xam nañ tamit jamono jiñ koy war a joxe kooka dara nekkut ci dégg nga de waaye lañ cay xaraamal rek yow mooma la ñu njëgal la bu ko sartal ne ci sa tool bi nga koy génnee boo ne ko ah jox ma fukki junne suma ma góobee sama tool bi jox la ñaari saakoy dugub wala ñaari saakoy mboq ngeen d'accord ci xaraam na ndax su boobaa yaa ngay jaay wala yaa ngay jënd loo xam ne eh, xéwee na gut te yonentu fay tere jaay meññent moo xam ne xewee nagul ñi mën ko jëriñoo di jëgut waaye boo ne ko nag heure ba danaa la ko jox waaye wéeroo ko ci sa tool bi rek dara néew ci foo ko mën a jëlee yow yaa boo ko jëlee sa tool baax na boo ko jëlee baax na dégg nga euh, mu ngoog euh, mu ngoog ba ca tegu tamit ci yaxaraam mooy dax sipil waq bi ta nga ngëp léegi malaa jaay malaa lebaloon fanweeri junne ñi jëm weer wu dee léegi kat weer wi deexagut nga yàkkamti lool ma ne la wàññil bor bi te ñu wàññi diir bi mën naa la jox cent mille francs léegi la quinze te ñu bàyyi cinquante mille yow mun na xasaay fa xaram sippil te nga ngëb aw jara wala bijji xardu leb nafaan njariñ képp koo xam ne ngaa leble def xardu lu mën a doon waroo caa dàkk lu dul yàlla waaye boo ca dàkkee intérêt bu ca mën a nekk rek loola xaram na euh, bor daal bu bu bu bu bijjee njariñ ñeexal borom bor ba xaram na njariñ la lépp kay ci leb la war a ñeexal rek mu ngi mel ni tey naa la lebalee ci pepp mu bon mii mu ren mii ñaaw mii boo ëllëgee nga fayee ma ko ci pop peppam peppam déwén mu rafet mi ngeen wax loola ci pepp mi daal pepp mi ma bi ma la lebal daal di nga ma fayee gën a rafet su fekkee ne sartaalu leen ko sax duhul faxaada yow yaa baax fayee ko loolu rek dara newul ca wala natteekaay bii su ma la ko lebalee ci bii boo may fay ci bee nga may fayee loolu lépp bi ji la njariñ wala ci xàll ba tey kan nga ne man kat damay saade ku nangu tey ma saat la loo soxla boo ma ko lebee ma lebal la ko kon kat waa ji tamit jox na la ña xam nga door koo lebal dégg nga de euh, yu mel noona wala dama santaane sama liggéey ku ñëw sama liggéey ba kay ba gis la loo soxla sama xalal boo ma lebee ma lebal la ca ah yow loola bor la bu bi ji njariñ ñeexal la yow mooma borom bor ba daal xalaa kulli xaal yàlla dong la war a dàkk ca leblem nga da ko xasam yàlla ñàkkoo dara waaye bu ca bijjee njariñ rek kooku xaraam na dégg hmm, loola bu ca xamee rek maanaam lool xaraam na dégg nga euh, loo teg euh, walil jusaafi walil jusaafi aji nekk ñeexal jóor dégg nga bu la neexee nga wax du limal ca kanam suróotan ay sarta suróotan ay sarta saban di juróom-ñaar lil saafi ñeel jóor njaay muñ jóor nii konte huñ ko ma jënd ko noona jóorab gerte bi wala jóorab dugub bi wala hangar bi ak lu mën a doon balaa mën a am juróom sarta wala juróom-ñaari sarta mooy dëppoo bu ca manqué du mën a dagan ba ke njëkk mooy lam yaq si daa jubluhun ñoom ñaar kay jënd ak kay jaay afraadahoo conté ko mooy benn bennal ko man jubluwuma man mënumaa konte yow mënoo ko te bëggeewuma ko noonu man jóor laa bëgg a jënd man tamit ci jóor laay jaay njaayam jóor laa ko yemante moom laa jënd waaye jubluwuñ pour conté ko lu mel ni tey ay yére yére kenn waru koo jaay ci jóor mën nañ koo konte ay jaam buñ ko mën nañ koo conté xayawaan yi kar yéeg ba yéeg nangam kaay ma jaay la gétt gi noona daganut mën nañ koo conté dégg nga dégg nga dégg nga hmm, lu mel noonu kenn du ko jaay dégg nga ci loolu wa jëxluhoo ak ak réeréem yow mi may jaay réeré nga ni jóor bi toll man mi koy jënd réeré naanam toll kenn ku ne xayma rek lay def à papare près war naa mat fukki bëri ko rek xat xarasaahu ndàmb nañ ko wastawaa taxe moom tamit maxaloo place bañ ko jóor place biñ ko jóoree bu junkee mën naa kawe fekk bëriwut bu xóotee mën naa suufee fekk bari na yooyu yëpp ci am wa kaana di nekk wa kaana nekk te mar yan gis gis yaa ngi gis maa ngi gis kaay ma jaay la jóor ba ca kër ma ndongo rek gisoo gisuma daganut wala kasura bëriwut jiddan lool bu bëree ba xëpp boo àpp pare daanu waaye bu bëriwut lool nag man ngaa àpp pare li ngay kii da xayma gi du sori na fekk tamit wa adduhoo lim ga xasura jafe lool jafe bi laa masaqan ñu lu coono su ma ko naree compter nga compter ko dana métti ki ñun waaye su fekkee mën nañ ko compter duñ sonn dañ ko war a compter ay jaam nañ ko compter duñ sonn ay xare ki bëy mën nañ koo compter duñ sonn ay yére yu mel noona dégg nga de yëpp bu ca dàquhu rek njaayam jóor dafay nekk loo xam ne nii lu xaraam la muy juróom-ñaari sart yooyu léegi nag buntu bi ci tegu baabul bayi al fasid njaay mu yàqu njaay bu yàqoo lan mooy xatte ba njaay dana yàqoo ci lañuy ñuy jaay jaay wut muy ca eh, dégg nga wala sax la njëgal mooy jaay mooy lañuy jaay mooy la ñu njëgal la wala ak kay njëg gaa njëgu wut waaye doonte lañ njëgal la njëgu na wala ak kay njaay ba yàqu na njëgga na lañ njëgal la njëgu na waaye jamono ja moo njëgu wut heure ba waruñ caa jaay yu mel noona yooyu yëpp boo xamee dina la wax lan mooy xatte ba ak lañ jaay ndax ñëpp dëppo dëppoo ci xaraam ga wala ñenn ca dëppoo mu mu muttafax la wala maanaam muxtalaf la bu boobaa yooyu tamit dafay am wuute wa kullu baayin bépp njaay xat nuhiya boobu tereef na xanu ci moom yonentoo ko tere wala alquran tere ko wala borom xam-xam bi dëppoo ci tere ga kooka fasada yàqu na in lam yàkkun nem nekkut moom njaay ma istanada di wéeru ilaa dalil ci tegtal bépp njaay moo xam ne xamul dalil istinaat amu ca du ci sharia su boobaa mooma njaay yàqu na njaay bu yàqu mu loolu mooy njaay mu yàqu dégg nga ka bayihi mu di ca misaal nag ni ki njaayam allah ma yàpp bi xayyi jinsihi ci ci aji dund xeetam wa borom ñeenti tànk yëpp jàng ci saal na wenn xeet lañ jaay ma nag wii ñi rendeegut nga jaayee ma ko ci kilo yi yàpp wii ci nag wi ñi rendi nag wii daal ku ko àpp pare woon buuse yi nee nañ dana mat bëri ko genn wàlla kaay mën a tal la tamit ci nag bëri ko genn walla ndax man damay ngénte ji wala damay céetale ji loolaa ma arrangé nga jox ma yow wii di dund kenn man kat céetalewu ma damay yari nga ne kon nañ ko essence wante ca loola xaraam na dagganu ko loolu yontu fa ko tere te wax na la borom ñeenti tànk yëpp wenn xeet lañ yàpp xar waak wu bay waak wu nag waak wu gëléem waak yooyu yëpp essence wante ko ca way dund ca way dee xaraam na suñ bokkee dund tamit xëppalante leen ci kilo ya jox ma ci bii bii ma jox la ci bële te fekk ñu xëppalante xaram na mislan bi mislin rek yeddan bi yeddin aw bay'i thawbin wala jaay yére bil xasaa ci jembaraay jaaye yére ci jembaraay teg nañ yére ya fële wala lu ñu a jaay ñoo ko xam foo wax yére rek télévision ak frigidaire ak kër ak yëpp ma ne naa sànni wu bu xeer ba dal rek booba moom ngay jënd sa nangam man kon man miy jaay li ma jaay xaw ma ko yow mi ngi jënd li nga nar a jënd xamoo ko te far force bu dalee ko nga def ko kooku xaraam na wala akay ah dañ koo te sax ci xeer yi ñu jël lu mat juróom-ñeenti xeer wala fukk jox la ko ne la sànnil ndoor wu ñaar dal rek numéro 2 moom ngay jël ñu seet liñ numéroté woon ca bagage ya moom ngay jël bu 3 dal yaa moom numéro 3 carte carte yi dañ koy def loolu tamit dafa duggaale mbiram carte ak tamit loolu xaraam na aw bi lam si wala ci laalam dañoo takk waaja bët ya ne ko laalal boo laal rek moom mooy nekk sa sa sa mooy nekk sa jënd li may jaay man xaw ma ko yow li ngay jënd xaw ma ko aw biu wala jaay ko rek bil xiimati ca xayma ja kon xam ko jox ma fas wi ne demal jaay ko ca xayma ja rek xaw ma xaw ma lan mooy xayma ja ma dem di ko jaay nga ne waa seetal loo ci man rek man kay loo ma jox rek baax na loolu tamit day xam xam nga day xam ci nii démb rek am na ku ñu ko ñëw di ko jaay ci benn pompe jaay ma ko mu ne loo ma jox rek xooluxuma ko xooluxuma ma ne ko du ma ko jënd waaw danga war a wax lii laa jaay ma ne lii laa man su boobaa dara néew ca dem nag dañ maa nax moom njaay ñi nax ju ca jëriñ comme xam nga xer rek naxi jëriñu ca aw ma xat xakkama wala loo xam ne xat bi bii ci moom fulaanun diw danaa ko jaay ci lu diw wax diw mooma lu wax rek mooy prix bi dagarut dégg nga te fekk nag ci sartaan nag in bi kullin ndem ci képp àll sama waral na ko moom bu ñëwee lu mu wax moom man mënu ma caa génn yow mënoo caa génn waaye su fekkee lam wax bu ma enragé mën naa génn dara néew ca waaye bu fekkee mënu ma caa génn mënoo caa génn rek xaraam na dégg nga de aw ajalin wala jëm diir majhoolin bu ñu réeree jaay naa la kër gi ci fanweeri million kañ ngay fay nga ne d'accord naa kañ nga may indil njëg gi nga ne su ma xamee majhool la xamuñ ko wala bu diw ñëwee te xamuñ diw moom a kañ lay ñëw loolu daganut kon la njëgal la dañ ko war a xam njëgg ñi xam ko fa ñu joxe njëgg ñi xam ko aw kalxab la wala ëmb jaayale ëmb ba naa la jaay fas wi wala gëléem gi wala xaram tulaa béer bi waaye nag dafa ëmb de dama lay jaayale ëmb bi xam nga ne xar mii bu ëmbutoon deux cent mille jaaduwut ci kon dafa ëmb nag trois cent mille nga may jox ndax xaram nangam la waaw ëmb ba bu yàqoo nag wala muy dem mbay am doom mu far mu mën naa avorter mën naa dem mbay am doom tamit doom ja yooyu tax kon jaayale ëmb mbaa nga ko cee sartawante dafa xaraam aw istarihi wala jënd ko waan an nga dundal alayhi ca kala jaay ajalawoo diiram ba mën naa laa jaay kër gi d'accord naa de juboo nañ waaye njëgu kër gi nag mooy nga dundal ma dundal borom kër gi la ko jaay ba muy deexee loolu kenn xamu ko mën naa dund fukki at man naa am juróomi at kon yow ndeke li nga jaay yow xam nga ko waaye yow li nga jënd xamoo ko waaw waaw kenn xam ko aw sarti xamlin wala sartaab ëmb nga sartaal ci ëmb ba loolu daganut aw bi tafriqil wala wala teqale doom ja an ummihi wala si yaay ja min qabli isqaarin njëkk foq fasada loolu yàqu kuy jaay yaay danga war a jaayale doom ja ko ma ngay nàmp doyloogu lekk wala yaay ja waaye di ko jaay di leen séparé loolu dafa xaraam ndax booba yaa lor yaay ja ca war a nàmpal ga yaa ngi lor doom ja ca war a nàmp ga tax kon yonentu fa tere lii lii ma wax la yépp xadis la yoo xam ne yonentu moo ko tere ci njaay aw baaxa wala mu jaay maa chartin ànd ak charta bi diddil xasdi ca safaanab jublu ga comme nan ka biatu ko ni ki jaay naa la daara kër ga bi chartil hëddi ca sartaay màbbu waaye kuy jënd kër ku ne jënd dëkkee ko wala dëkk fa moo doon hëdëf ba waaw waaw kuy jënd oto ku euh, dugg ca wala duggale ca ay bagaas moo doon hëdëf ba waaye dinaa la jaay oto bi waaye doo ko dawal de doo ko war danaa la jaay kër gi waaye doo ko dëkkee de ay da koy màbbu nangam ak nangam kooka dafa xaraam ci njaay dégg nga wa kullu bayin bépp njaay faasidin bay aji yàqu lam yasri du royaat damaanuhoo warlu ga waral aji jënd ji illaa bi qabdil mustari lu dul ci nga bëgg aji jënd ji nga bëgg aji jënd ji rek mooy tax mu door a mën a warlu kon saa yoo jëlee sa marchandise jaay ko nit njaay ñaari xaaj la njaay mu wér ak mu wéradi njaay mu wéradi moom ci boppam ñaari xaaj la njaay mu wéradi moo xam ne boroom xam-xam yëpp dëppoo ca ñàkk wér ga jaay mbaam xuux jaay ab xaj jaay mm, sàngara ak yu mel noonu lu wéradi loo xam ne boroom xam-xam yi dëppoo wuñ ca wéré digga ñi dañ ci ànd ñi ñàkk ci ànd ni ki jaay ca waxtu heure juma ñëpp d'accord wuñ ci buy mazhab bi dafa ne njaay ma wérut boo génnee leen ci mazhab bi imaam Ahmad ak ñu mel noona dañuy wax ne njaay ma wér na kon muxtalaf la su boobaa nag comme danga nga jaay am marchandise ñëpp dëppoo ak wér déem ñaara mën su fekkee ne yow mustari bi téye nga marchandise ba ba pare téye nga ko lam la jaayoon buy bàyyi ma dee na buy kër màbbu na buy yëre wala marchandise lakk na kenn mënu tut koo dellooti te duutoon luñ doon luñ lu ñuy peese loolu luñ mën a kay nattu wala ñu mën koo màndaxa su boobaa kon dañuy seet xayma ja jamono jëm la koy jaay duñ seet lam la ko jaayoon mais xayma ja rek la ñuy seet bu xëppee lim la ko jaayee woon nga delloo ko bu ko manqué bu ko xëppee mu delloo la bu ko manqué yow nga delloo ko loolu mooy wax ji su fekkee ne nag njaay muñ wuutee la ni ki dañ fas ci waxtu jumaa yàlla dogal na mustari bi téye na ba pare lam ko jaayoon dee wala mu lakk wala mu yàqu te kenn mënut koo dellooti ndax duhut lu ñuy peese duhut lu ñuy natt kon su boobaa lañ tuddoon rek la koy jox lañ waxoon rek d'accordoon ca loolu la koy fay su fekkee ku mu ci ñaari njaay yi nag yàlla dogal na mustari bi téyegut njaay mi wérut dañ koo wuutee ak wéram wala a kay sax dafa wéra di carrément ñëpp ci dëppoo te yow nag son na goo téye donte yow joxe woon nga jëgg ba pare jaay na la fas wala mu jaay la kër nga compter say million jox ko yow nag son na goo jël caabi kër ga wala kayit ya buy fas wala xarak yooyu téye goo ko fas wa dee wala kër ga màbb wala bagage ya lakk moom mooma mooy perte na la sa xaalis bi waa loolu moo ci nekk su ku mu ci ñaar yi nag moo xam muxtalaf bi la moo xam muttafaq bi la yow comme téye goo a yow mustari bi te la ngeen jaayante woon yi sànku na nekkatu fa te yow sonn goo téye lam la jaayoon su boobaa moom mooy perte donte moom téye na sa xaalis tamit da ngay dem mu remboursé la mu jeex su fekkee ne nag ñaareel ba njaay mu wér la ba ngeen waxee ba d'accord rek njaay ma fasu na kaay ma jaay la kër gi d'accord naa lu ngeen d'accord 30 millions nga ne d'accord naa njëgg a wér na li njëgal la wér na waxtu wi ngeen ko jaay duhut waxtu wu jumaa yow nga ñëw rek avant ngay fay kër ga màbbu wala gaa yi ñëw toj kër ga ne yoon a fa war a jaar te moom ba mu la ko jaay xamut ko woon duhut nëbbu dara lu ci nekk yow yaay perte wala mu jaay la fas ngeen wax ba juboo heure ba baax na njëg gi baax na la ngeen wax lépp dak condition yi wér na avant ngay dem di jëli fas wa fas wa dee wala nga compter sa xaalis ba ne yaa ngay fay fas wa lekk ko wala xar mi wala nag bi yow moomu yaay perte yaay génne at xaalis nga fayaat ndax ba ngeen waxee ba pare rek ko ci la façon moo tax mu ne wa kullu bayin bépp njaay fasidin bay aji yàqu lam yasri du royaat damaanoo warlu illa illaa bi qabdil mustari lu dul nga bëgg aji jënd ji bu xasee ngëb nag ah kon moom moo koy damaan moo koy garant lañ jaayoon su fekkee ne ma ca loxoom ba deena te du luñ mën a delloo xayma ja du ci peese du ci natt moom mooma mooy perte boo su ko defee léegi waajee njëggam joxe woon wér na ci moom wala téye na waaj sonn gu doon joxe njëgg sax na yëkkati njëgg jox ko waajale jeex na waaye su boobaa lu muy joxe nag su fekkee njaay mu yàqu la te mu nekk muxtalaf mu nekkoon fii nekk na ci musamma lañ tudd bis fasaade ki sababu yàqu ga al muxtalaf si yàqu goo xam ne dañ caa wuute li ñu ni ki jaay ci waxtu heure juma waaye wa qiimatun xayma nag taqusoo dana jagoo ko yow ma talaf bisab sànku ga nag E dafa loola sànku na kenn mënatut koo dabaatalati te njaay mu yàqu la moo xam ne mu tafax la ñëpp a dëppoo ca yàqu ga te mënatoo koo dabaatalati buy kër ga màbbu na buy yëre la marchandise lakk na buy fas wa dee na te heure bi mu la ko jaayee woon dugutoon waxtu euh, lim lim jaay gi dafa nekk lu borom xam-xam yëpp dëppoo ci ak xaraamam waaye yow sonnoon nga koo téye ba pare loola sanku na duhut ñu mën a ràmbu si ci peese du ki natt ndax duhut lu ñuy màndaxe duhut lu ñuy peese kon yow dañuy seet bam la koy jaay xayma ja la waroon a mën a jar ibnu qaasim ne ca waxtu xatte ba la ñuy seet xayma ja laxami yu ne ca waxtu njaay ma la ñuy seet xayma ja su ko defee ñu ne ah lu mu ko jaay ñu cent mille francs ñu ne eh, loolu xaymaam ëpp na loolu de cent cinquante mille la ñu ne ko jox ko cent cinquante dolli ko yeneen cent ko yeneen cinquante mille ñu ne eh, lu mu ko jaayee ñu ne ñu ne loolu xaymaam cent mille francs la ñu ne ko kon yow mii delloo ko dolli ko delloo ko cinquante mille am kon dañuy seet dañuy seet kii ba bépp njaay daal ci tënk su baxee bu wér bu ngeen xasee fas rek fasu na moom la ci teg nii wa fii saxiixil bàyyi ci wér ak njaay nag admin nanga nga warlu bil ba la xaq di ci bu fas ga bu ngeen takkee rek jeex na bu ngeen fasee rek bi ñeel na boromam bi saman ki njëgg fi fawti ca faatoog njaay ma su fekkee njaay mu wér la su ngeen xasee wax ba mu téeru rek jeex na bu yàqoo mooy lañ la jaayoon dee na sànku na wala yàq na sa xaalis bi nga doon fayee yow mii yaay perte ndax njaay moom wér na doon te jox rek goo dara sax su fekkee gu wéradi la dañuy seet ndax lu ñu wutee la wala luñ dëppoo la buñ ne lu luñ dëppoo la te faat na mënuñ koo dabaatala ti ñu seet xayma ja teewoon jamono jañ koy jaay ñii ne jamono jañ ko jamono jañ koy xattee dañ xattee ñàkk wéri dëgg njaay ma su fekkee guñ wutee la ni ki ci waxtu jumaa ak loola ñu seet comme jëmm ja nekkul fa kenn mënut koo dellooti ñuy seet la ngeen tuddoon rek nga yëkkati ko jox ko ko kon ñett yi rek moo mën a xam ci njaay kon tax njaay mu ñu la laajati ci masala rek seetal ñett yi ban la ci bu wér la am bu wéradi la bu wéradi ba buñ dëppoo lañu ñëpp wala buñ xuutee la bu ci buñ xuutee lañ lañ tuddoon la ko mëntuñ koo dabaatalati su fekkee buñ dëppoo la te mëntuñ koo dabaatalati kenn mënut ko faat na xayma ja la ñuy seet su fekkee bu wér la ñëpp ci dëppoo bu ngeen xasee wax rek njaay ma fasu na joxe nga joxe goo deena lépp yow yaay perte ndax jaay ma xas na voilà valable ba pare dañ koy valider kon baax